ñëw Macky Sall dinañ ci ñëwaat ci biir émission bi wante am na beneen doomu tànk aussi ci wàllu bitim réew nga xëy rek démissionné <laughs> lu tax démission yomb <laughs> muy UEMOA euh, démission du du lu yomb c'est damay méngoo man damay bëgg toujours lu def rek mu méngoo ak sama conscience mu méngoo ak sama conscience euh, ba ma koy def itam euh, sama yaay ju ji ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana amiin ba may démissionné parce que chaque fois bu may dama koy ñëw wax ne ko ah sa waa ji de mi ngi bëgg a bàyyeeti mi ngi bëgg a def le lu ma ci tegal mu ne ma loolu day awma lu ma la ci wax lu ñaanal la parce que pour l'histoire son papa chemin de fer la nekkoon cheminot la woon ba mu toogee ba xam ne mënatul nekkal tubaab bi dafa démissionné daal di ñëw fii tijji officine am fii ci Ndakaaru xëy na peut-être loolu moo ma topp mm-hmm. wante daal li ma xam mooy nit te moom lay moom lay wax sunu doom yi euh, nañu sax ci di méng lu ñuy def rek mu seen conscience mu seen conscience mm-hmm. bu ñu toogee ba xam ne rek war nañoo dem nañ dem bu ñu toogee ba war xam ne nag aussi dañu war a jàkkaarloo pour soppi li fiy dox nañ taxaw aussi wax ne dañu bëgg a soppi li fay dox. Mhm. bala ñoo dugg parce que également ya, ba bëggoon naa jël nah. taxoon ñu bëri dañ ne woon dañ la poussé vers la sortie parce que waa Niger bëggoon nañoo nangu poste bi ci Sénégal. ñu mhm. mhm. prolongé woon sax sa mandat. pour six mois wante xaaroon fa six mois lan moo ci am part de vérité bi. part de vérité bi nag mun naa ci wax tey parce que libre naa ci sama sama waxin ci sama defin parce que loolu laa bëggoon jotaat moo tax ma démissionné. sa liberté sama liberté de parole euh, sama liberté daal nga xam ne danaa mun a wax ci li ma bëgg a wax ci lii xew sama réew wala lii xew à l'international sax bu ma ci waree wax ma wax ci alors ba muy ñëwee man ba may ñëw benn bëgguma woon sax a ñëw yooyu moom

ma siggil sama réew ci sama doxalin ci sama defin sama nek nekkan nekkin foofu ma jëm ci def sama doole yépp ba ma ñëwee aussi nee naa suma soxna ne ko fii benn mandat lañ fiy def bu jeexee nañ ñibbi loolu moom lu ma décidé won la wax kook sama soxna ne ko benn mandat laa fiy def bu jeexee ma ñibbi ah ñu ñëw ba mandat bi jeex mu am ay coow daal ci diggante ay réew. Sénégal ak Niger. mu am Sénégal ak Niger euh, ay wax ah nit nag soo nekkee fen na sa réew yóbbu la fa ngay def sa tentulaay kàttan ah ki nga xam ne nag moom lañ fi teg muy président bu bees bi ñu fi teg. Macky Sall bu ñëwee moom mu xam ne nii lay doxalee wala na lay doxalee.

yow la ñuy soutenir en tant que personne parce que boo nekkee yow kilifa réew Sénégal yëpp taxaw daal di ne yow la teg ci ka bopp réew nga nekk ci bopp réew booy def defoo pour nit da nga def pour sa réew parce que Cheikh Hadjibou Soumaré amul amul daal autorité boobu Cheikh Hadjibou Soumaré nit la comme ni ñu mu leen jël beneen sénégalais teg ko foofu donc booy défendre yow da ngay défendre intérêt réew mi intérêt ñi nga xam ne ñoo la fi teg mais du intérêt Cheikh Hadjibou Soumaré parce que déggoon naa ci booba temps am na sax ay ñu fi tasooti xibaar yi wax ne waaw président mi ngi dem dafay dafay soutenir yi Cheikh Hadjibou Soumaré loolu erreur bu mag la. amutoon loolu dama ne loolu erreur bu mag la ci waxin parce que du Cheikh Hadjibou Soumaré dañuy soutenir intérêt wu Sénégal lañuy ñuy défendre xam nga loolu nuance la. Mhm. bokkul waaw Cheikh Hadjibou Soumaré dañ ko fa teg comme sénégalais rek. mais est-ce que défendre leen loolu nag moom moom ngeen koy mën a laaj parce moom moo ci mën a tontu li ma ci xam daal ba ma toogee ba évaluer foofu itam situation bi xam ne euh, méngoowul ni ma gisee méngoowul ak man bu ma doon man ni may doxale ca laa ne suma jabar ma ne ko euh, delluwul dakaar nga defaraat sunu kër defaraat yëpp te yóbbu bagage yëpp ci la ñëwee fii. defaraat fii indi bagage yi yëpp ba man ñaari costume laa fa bàyyi woon xaw ma ñett nga xam ne naa mën a dem mission dellu si moom mu ñibbisi yoree kër gi bu ma ñëwee sax mission bayoon naa ko bu ma ñëwaan mission sama kër lay nekk. lu ma nekk à l'hôtel mais est-ce que yow nga intérêt Sénégal maanaam bàyyi poste ba mu Niger ba sax boo xoolee commission présidence commission bi waa Niger ñoom ñoo ko yor nee nañ feeg 2021 xaw ma lan ciy jotaat. waaw euh, man nag fu ma nekk nag. wax dëgg fa yàlla mën nañ ma lépp ba mu des lu ma défendre sama intére réew man moom intérêt wu Sénégal ku ko xam la parce wax naa la léegi ne la euh, man euh, fonctionnaire la te fonctionnaire li ñu lay jëkk a jàngal mooy nga xam lan mooy sa réew boo gisee bi may door a ñëw sax ci gouvernement euh, ma doon wax président bi fi nekk moom wax naa mos naa ko wax. ñu ngi nekkoon ay ministre président Macky wax naa ko bi nekkee ministre ma ne ko erreur bu mag mooy nga ñëw jore réew daal di ne fonctionnaire yëpp nañ dégagé defe ne fonctionnaire yi dañ faraloon ki fi nekkoon te fekk boobu temps seen liggéey rek lañ doon def ñoom fonctionnaire c'est la république ñooy état ñoom état la ñuy alors donc pour li nga wax euh, sama intérêt réew dama ko mos a jiital. ci lépp lu may def mais jël sa intérêt réew mooy aussi ña nga xam ne ñoom la ñu sas ñu yore la nga xam ne ñoo la ci ëpp autorité ñooñu nga xam ne ñii la ñuy défendre yow ak ni nga ko xalaatee méngoo na bu méngoowul yow nooy def. bëggoon nañu xam nag position président ci loolu parce que sénégalais yi xam. président président ah kooku moom laa leen wax président moom mi ngi fi dañ koy laaj rek na ko boole sa position moom li mu wax. dégg naa ñuy wax rek nan bon waaw Hadjibou dafa ñëw daal di ñëw daal di bàyyi ah daal di yàq intérêt Sénégal nangam ak nangam ak nangam xam nga man nak dafa am loo xam ne euh, lu am solo la ci man moo di fu aussi di défendre bu ma xamee ne euh, sama réew méngootuma ak moom xalaat ci ñu ko défendre ma wax ko te ma wax ko aussi parce que man lu may kii rek dama koy wax pour dater ko pour l'histoire ma wax ko expliquer ma gis ne beneen doxalin la bu boobaa nag man damay jël sama responsabilité bop ba mu am incident yoo xam ne ku nekk dégg na ko ak le Niger ba mu amee nag ci bind sama lettre daal ne dem jot na parce que maa ngi fa ñu toogaat 6 mois ñu ne bon dañ lay joxaat 6 mois te boobu temps man suma bagage yëpp delloo naa ko parce que man dama bëggoon dem ma toogaat ñu bëggaat 6 mois ma gis sama réew nu muy ni muy nu muy defee donc loolu tam euh, lu doy waar la moo tax man ma jël samay responsabilité bopp daal ne bon ma nee bu ma nee damay dem peut-être dana am décision. taxawaay njiitu réew Sénégal daal nga rafetlu woon. Euh, respecté naa trop nag gis nga chef d'État moom dama ko respecté trop. parce que comme li ma leen wax njiitu réew dama ko respecté wante man ci li ma xalaat mun naa ko wax tey mooy d'accord ma woon ak moom ci ni mu xalaatee loolu moom lu leer na d'accord ñu woon ci ni mu xalaatee. nu mu xalaatee. ah nu mu xalaatee ko laaj. Ah. wax naa la ko nee naa la dangeen ko laaj. <laughs> alors xam naa <laughs> booy bind say mémoire incha beneen yoon di ci ñëw gën koo xóotal kon lan ngay tontu.